asalaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ministère la santé et de l'action sociale tey bésu ajjuma fukki fan ak ñaar ci weeru février mi nekk ministère la santé et l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett test yi def ñeent téeméer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 ñooñu seen lim ni la tëddee ñaar fukk ak ñeent ci Louga ñaar fukk ak ñaar ci mbuur fukk ak juróom ci Dakar Plateau Kaolack ak Mariste fukk ak ñett ci Thiès fukk ak benn ci Rufisque juróom-ñett ci Kër Massar juróom ci Diamniadio HLM Grand Médine Liberté 6 ak Point E ñeent ci Médina wokam Pikine Patte d'Oie salemata ak Zac Mbao ñett ci Bargny HLM HLM Grand Yoff Khombol Mermoz Ndofane Scat Urbam Sokone Thiaroye ak Yeumbeul ñaar ci Cité Taco Koki Diourbel Fatick Guinguinéo Liberté 3 Liberté 4 Linguère Matam Parcelles Assainies Petit Mbao Sangalkam Sicap Baobab Touba ak Yarax benn ci Amitié 3 Bentali Cambérène Cité Asecna Cité Comico Cité Gadaye Colobane Dara Daaru Musti Diamaguène Dieuppeul Fann Résidence Gibraltar géjawaay Hann Bel-Air Kaffrine Kédougou Kër Mbay Fall Kolda Koungheul Maka Koulibantang Mamel ñaaritali Tali Ouest Foire Richard Toll Saint-Louis Sakal Sébikotane tàmba Vélingara ak Yoff ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ci malade yi entré woon hôpital ak ñi ñi topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde juróom fukk ak juróom benn malade ñoo nekk réanimation fukk ak benn malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb alxames fukki fan ak benn ci weeru février miñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dale ko ci kaa njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak ñett téeméer ak juróom ak juróom ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar ak ñeent ak juróom-ñett fukk wér nañ si juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom ñoo génn àdduna mu des ñeenti junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ci malade ñi nga xam ne ñu ngi ci lalu hôpital yi ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ministère la santé l' sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn hôpital ñooñu euh, nekk ci hôpital yàlla may leen tan ba ñu génn ak euh, ministère la santé et de l'action sociale muy ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana